bismillah yeewu naa ne jar xiqi ximbaliku koor gi mat ma xëdd jàpp julli timis yeewu naa ne jar xiqi ximbaliku koor gi mat ma xëdd jàpp julli timis miir mi dal na bopp bi sedd seetetetet kooru tey gi yàlla am na lum ci laxas nii mu tàngee woon fa xëpp xay yakata mel ni jinni mooma pes ma daanu kiris tertereeka jékki-jékki daanu këlëb tertereeka jékki-jékki daanu këlëb saf ku woore campinal ba walla rëbës dara dara gënta metti woore kaso wan ginnaaw sa mbokk yépp xel mi nemes kër yi xumb waxtu dog yi kenn ku ney saafu xante ak fa mem bi mbigte di fés nit ki nekk ndungu sinde wéet na sori àndandoo ki mbokk xarit mooy lu tiris bàyyi seen njaboot gannaaw mu metti ci xol dëkke dund tiis yu rëy te muñ nga bësës yenn gaa yi fàtte lépp léppi sa mbir yow nga ñàkk say liberté ñépp di gis fekk lañ la toppe tëj la tus amu ci léppi tuuma neen yu leer la ànd ak i sos waaye yàlla buur du far ko tooñ fi xamal njëkke wuñ ci yow mu ñel mu dal di nemes nattu rek la lee mu jàll fàttalikul Yuusufa ki gaa yu baax ya xista ya fees dëkk benn mel yoon amu fi kenn newul ci sécurité dëkk benn mel ne réew mi yoon amu fi kenn newul ci sécurité fépp a kiris yàlla na yàlla may nu jàmm ak xolu muñ teggi nattu yépp barke fàllu galas yàlla na yàlla may nu jàmm ak xolu muñ teggi nattu yëpp barke lu Galas asalaamaaleykum. sastre sastre ngoog borom sikkim bi xamal leen sikkim bi maam yéen ñi nattal leen sikkim bi yooyu noonu pour ngeen mën a gis sikkim bu baax a baax alaay alaay sëñ sikkim